démb démb euh, dama toog ak benn mbokk mu may ñawal sama tailleur la ñuy waxtaan ba ma ni ko man de am na doomu Baye fàllu Mbacké bu ma sopp loolu tax xaw ma ko te bëggoon naa jotanteeg moom téléphone mun ma xaaral ma jox la numéro mooy Mouhamadou Rafaay tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina ku jarañaana la ngi noonu ndax xam-xam bi ak na mu koy joxe ak fit wa mu àndal ci jamono tabarakallahu ahsanul xaaliqin ñu ne ñoom benn lañu du dëgg te yàllaay joxe cër yi kenn ku nekk nañ la nangul sa cër àdduna neex ah waaye man rek may dara ku bokkul ci man doo dara loolu erreur monumentale la am na ñoo xam ni ay juddit dañu tuukuur rek jëluñu benn tariqa te boo moytuwul ñoo ëpp cër foofu ci ñu jël tariqa est ce tariqa bi nga jël bo ci bëggé bokalé ak nit rek yàlla teg la fa ak ko mëna doon ndax al kibriya yi bari na nak ci réew mi légui bokalé bi yàlla ak diw wax yo xamni ni mën na tukkal aduna takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al ard wa takhiru al jibalu hadda an da'u lir rahmani walada ci waxin وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا te ñi ñuy bokkaaleel santuñu leen ko ndax ñoom ñemewuñu ko ndax ku xamagul looy am ëllëg ak foo mujjëg sa boroom boo ko bëggee jox yenn ci dafay ëpp yonent bi moo mënoon a dóor dënnam bàkko te du ko def ndax dañ ko wax ni dafa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés ni laa jannata ahadun bi amalihi qila xata anta ya rasul allah qaala xata ana illa an yataxammadani illahu bi rahmati nene na yërmande yàlla rek ko mën a sauver moom yonent bi xoolal ma loolu xoolal ma boobu wax waaye ku ku rafetal nag représenté ñëpp nag laayeen beeg xaadir beeg tijaan beeg murit beeg ñépp ku ci ku ci moy ci yeneen bi rek gisante ki nga yaakaar ëllëg waaye boo ko fa toppee di def lu la neex ak ndax woyef ak bëgg lu yomb doo leen sax gis kon nañu bàyyi xel loolu ñun bu doon suñu sago ñun ñëpp ñu dem aljanna yal nañ ko yàlla defal waaye nañu bàyyi xel yàlla nag te xam ni moom rek la du keneen keneen nekku fi ku dul jalla jalaaluhu wa azza kamaalu كنن نكو في كل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني ني واخ نيب لي تخ ني دي تودو ياكار بو ني ام نيوم واتيو ني فا يوننتي بي تيغون تانكا ما تخ واي حاج مالك بي سما مام شيرين عبد سما باي صاح بوما گمون ني بس خاونا دنگي دنگي ما بايي كو فا جيما من داو دابي يوننتي بي عليه الصلاه والسلام